Euh, man de sëriñ bi daa mel ne bi daal wax dëgg yàlla man jàpp naa ne jàpp naa ne sëñ bi la ba keroog may gis lu gën a leer loolu itam ma bàyyi li ma jàppoon ndax li tax ma jàpp ne sëñ bi la mooy bi ci jiitu mooy ñun ñëpp maase nañ gëm ne sëñ bi am na foto waaw loolu moom gëm nañu gëm nañu sëñ am na foto ba benn foto bii nga ne moom lañ gisoon ñëpp nangu nañu sëñ bi la sëñ bi uh, mën a am foto moom lu yéen maanaa ndax am na beneen foto wala amu ko yi itam lu man a nekk la ndax gisuñu fenn fa sëñ bi ne benn foto la am gisuñu kenn ci mag ñi ko wax na sëñ bi nee benn photo bii dong la mas am te tubaab bi yàgg nañoo ak moom lool te jamono yooyu photo amoon na ba vidéo sax amoon na te tubaab bi ñu fonk archive lañ kon sëñ bi am beneen photo moom lu yenu maanaa la a nekk la maanaam kon buñ buñ bu bañee jàpp rek ne sëñ bi benn photo la am loolu moom ku ko jàppee ko fenn moo ma jàpp ne beneen photo génn lu yenu maanaa la ñaareel bi mooy photo bi histoire bi mu dëppool ndax ki ko génne dafa wax ne le 11 mars 1918 bi ñuy teg xeer wi euh, njaareem loolu itam dafa dëpp fata bi dafa dëppoo ak événement bi ndax boo demee ci sëñ la Lamine Diop Dagana dafa wax ne bi 1918 bisub altine te boo xoolee le 11 gii borom fata bi wax moo bisub altine boobu ñoo tolloo tegu xeer tamit la sëñ bi doon def ci photo bi nii gis nga ko dafa xeer wi julli ñaar raaka daal di daal di daal di photo bi doo am sëñ Mouhamed Lamine Diop loolu la bi mu génnee ci nee na bisub dimanche lañ gas lañ gas pànk kam kambi njëriñ bi kambi ay kambi yu mag a mag ci jumaa ji euh, sëñ bi bi ñëwee ci àll nañ daa dugg ci biir pax mi ak sëñ Matar bindaloo ak bagage ak ñeneen lool nag day day wane ne kon pax mu yaato yaat la woon te loolu niru ko ndax foto boo xoolee foto bi fii sëñ bi jullee doon te leerul bu baax di gis ñu ne ci bit di seetaan day mel ne ñooñu dañoo tiim sëñ bi kon fi sëñ bi nekk daa mel ne moo gën a xóot ñoom fi nekk ñaare bi tamit jëmmi foto bi ci boppam moom boo xoolee xool xar kanam bi ak taxawaayu sëñ bi ak mbub mi mu sol nga xam ne mbub mu mel noonu la baaxoo sol mbub moo xam ne day day xaw a gàtt ñaare bi ta mbub mi amul poos bi ci toppaay itam mooy mbub mi boo xoolee loxo yi daa gën a gudd ma loxo yi day gudd ba loxo yi du feeñ boo xoolee mu jullee ba jub di dem da gis ne loxo yi doo gis te loolu itam foto bu njëkk bi loolu nemmeekoon nañ ci ne loxo bi doo ko gis suñu musuwaay gay rawaay dafa wax ne sëñ bi daana tegale ba léeg-léeg nga gis ne mu yor jëmm joo xam ne ëpp jëmmam ndax neen daana sol dara sax jël ab jàllaa bi teg ko ci xeeti mandarga yooyu daal boo ko jëlee xool tamit ñi ne ci wetu sëñ bi ni nga xam ne noonu lañ ko war maale ci ñàkk sol daal la ñàkk sol mbaxana man xawma ci histoire ci jamonoy Sëñ Tuubaa ak la ko koo xam ne say taalibe daan nañ la war maale jege la bañ a sol a sol daal jamono sëñ bi ak ñi leen jiitu ci jamono jii itam xawma woon benn sëriñ bu am kattanu tegu xeer abay tabax ci jamono ci Sénégal maanaam benn sëriñ bu amoon kattanu tabax dara ci 1918 ci réew mi amutoon maanaam amut benn sëriñ boo xam ne amoon na kàttanu mën a tabax bu ko defee nag ñi nga xam ne dañ koy weddi di wax ne nit ñi niñ jege woon sëñ bi ak sëñ bi dañ ko wegoon loolu moom am na lu ko mën a dindi ndax li ko mën a dindi mooy bis bi da nga xam ne maanaam 1918 euh, la te 1918 fekkoon na sëñ bi jafe fekkoon na mu naqaree gis fekkoon na nit daan ko namm loolu àggoon ci nit ñi sax mas nañoo buuxante ba dal ci kawam ba dagg aw dàllam ba dagg ab baaraamam ci lañ ko defaloon yooyu ak kees yi ci njëriñ kon nit dañaan xër ci gis ko rawatina mu génn këru njëriñ ñëw ci penc bi ñëpp daan génn di ko seetaan te ginnaaw événement la tegu xeer xam nga ne sëñ bi ni mu bëggee jàkk ak jàkk ji ni wax ne moom la ko borom maye mu koy fàttali jàkk jam eh, yàqoon ca Gabon eh, xam nga ne bisu mbégte lay doon ci moom boo xam ne du bokk moom dong faaw mag ña fa nekkoon ak ña ko a fekk ñëpp dana ñëw fekk si moo tax ñi nga gis ñu ne wetam day mel ne ñooy mag ñu ñëwoon ngir fekk si tegu xeer wala ndax bisu mbégte boobu nga gis ñe des nga xam ne mën ñoo yegg si ñoo taxaw ne di seetaan ngir xeer guñ xeer ci moom kon jege giñ moom loolu moom du tubaab bii nga gis ci wetam itam mu mel ne ku yor ab cartable gàddu ko loolu yërëm na maanaam ndax sëñ Mouhamadou Lamine Dagana dafa ne ci bis bii lañ tàmbali liggéey bi te liggéey bi ay tubaab ko yoroon ginnaaw bi si Isa nekkee jëriñ nga gis tubaab bi li ñu bokk ne cartable day ay panaak yëf kon boo seetantalee photo bi daal ci niru gim niru sëñ bi ak jëmm ji ak événement bi mu tollool ak itam jàpp ne lu mën a nekk la wax dëgg yàlla man samay xel day nangu ne kii mën naa doon sëñ bi